suivre euh, Topouka on continue de plus en plus belle parce que Topouka xam ngeen ko c'est des chapeaux c'est des euh, c'est yoo xam ne dañu lañ koy préparer euh, dañuy defaat directement ci li nga xam ni moom moo gën a fës si politique bi ñu mën koo tëjee muy li nga xam ni di Serigne Mountakha Bassirou Mbacké dalal bi mu dalaloon coalition Yewwi Askan Wi ay révélation yu bari daal di fay génn sëriñ bi jël euh, tàndarma bu sell daal di koy jox waa yow askan wi daal di wax joxoon leen ma ko Sonko loolu nag ñu bëri ci sénégalais yi am na nu ñu ko décortiquer jumbóori nee nañ sëriñ bi dafa bëgg a wax kii di Ousmane Sonko euh, ak lu ko mënti métti euh, na jël tàndarma yii ma ko jox mu xéwalu ci te xéwalu boobu noonu am na lu ci am na ndigal bu ci nekk moom mooy ñëpp jàpp nañu sëriñ Mountakha dafa jox ndigal kii di Sonko mu mu mu génn ci grève de la fin bi nga xam ne ci la nekk naka nga gisee waa askan wi ni ñu demee woon Touba ak ni leen xalif bi recevoir grand jumbóori waaw xam nga boobu ba tey jaañnaar gis naa nit yi di si coow quoi mm. xam nga Serigne Mountakha mm. du mboojum wëtteen ba ku si nekk di ci fecc quoi kilifa la n'est-ce mm-hmm. du dëgg léegi li ma lay wax lenn la mm-hmm. xam nga entre Serigne mun waaw ak Ousmane Sonko mm. ak Macky Sall dafa am benn affaire bu fa nekk te sénégalais yi comprendre uñ ko dañ ne Euh, sëñ Cheikh Mati lay dafa ñaanoon Macky Sall. Hmm. ci Karim wàdd ñu ne mayu ko. Hmm. xam nga ñu ngi ko doon wax. Hmm. man bi ma fiy mujj nee naa la am na sëriñ yu doon ñaan ci suuf mais du ñu ñëw ne la ñu ngi ñaan. ci suuf ki ñuy ñaan moo war a wax diw ñaan na ma. te dafa naa firndeel na ko foofu. ñu ne sëñ Cheikh Mati lay dafa ñaan ñu ne mayuñu ko. du dégg après Khalifa Sall. ñu ne euh, kii sëñ abdu dafa ñaan. xam nga mayu ko. yaa ngi dégg léegi nag. Euh, entre Macky Sall ak Ousmane Sonko. Hmm. ak sëriñ bi. Hmm. dafa am lu fa nekk. Hmm. te pour man damay wax suma xalaat. waaw Macky Sall mooy koo xam ni yàlla may na ko daf ko may. xam nga. lu xam ni lay wàdd amu ko. xam nga Ablaye Wade dafa daanu ba pare doog a yeewu. am na wala amul. mais Macky Sall événement mars yi. dem na ba nga xam ne moom kese dégg naa mooy toog si pale bi gisatul kenn ñi doon wër di wax si télé bi nii di bari wax kenn génnul wax. Mhm. du dëgg. léegi sëñ bi sëñ sëñ sëñ Muntaxa si boppam. Mhm. woo Ousmane Sonko mu ñëw mu ne ko bàyyil mu bàyyi. waaw mhm. léegi dañ ne Ousmane Sonko dafa ñu bëri dañ ne Ousmane Sonko. sëriñ bi daf ko yoreel bor. loolu lañ wax. ñu bëree koy wax. léegi kon Macky Sall dafa yoreel bor euh, sëriñ bi. ñett ñooñu kenn ku ci nekk kon am na lu mu war a jox moroomam kon parce que boobu dëkk bi fi mu toll fi mu tolloon ak tension dëkk bi demoon na ba nga xam ni kenn génnul sëñ bi génn rek régler lépp ni Sonko bàyyil Sonko bàyyi am na walla amul. Mhm. léegi kon tey tey jii nii su fekkante ni jox na Sonko tàndarma xam nga jox Sonko tàndarma bi. waaw jox Sonko ne ko lekkal. est-ce que xam nga su fekkante ne ñi ko soog ko seeqal bu doon man maay président bi man. du ma xaar sëriñ bi yegg foofu. way parce que dafa am lu xam ne xoola dafa am bor boo xam ne da ngay xaar borom fayeeku ñëw fayeeku la. boo xam ne da dem fay am na bor boo xam ne doo xaar mu ñëw ne la fay ma. da dem fay. da ngay fay da ngay fay mu yëg ko parce que dafa la garanti. loolu laa gis. Hmm. parce que tey soo toogee sa dara di yëngatu man ma ñëw fexe ba loolu sedd. léegi am na bor boo ma ameel man parce que nit boo nee nu ma koy def nam la def a tax ba pare tey jii danga gis ni sëñ Muntaxa boobu ba léegi ku si nekk yaa ngi wax naan sëriñ bi na wax sëriñ bi na wax sëriñ bi na wax c'est-à-dire sëriñ bi na wax tey képp ku mere sëriñ bi sëriñ bi ba réew mi tolloo ci jafe-jafe ba mu waxee lal ñun ñëpp lan lañ wax. nemb lañ def sant yàlla lañ def ñun ñëpp. kon buñ toogaatee mënta noppi ba pare bi ñu toogaatee daf ko feddaliwaat. dafa feddaliwaat daan ne ah moom de am na bor bu ma ko kii nangam nangam. du mm-hmm. dëgg mm-hmm. mais boobu ba léegi maa ngi wax. Mm-hmm. yaa ngi dégg maa ngi wax mu fàttali leen ko am na wala amul. léegi kan ci ñoom ñett daal mooy fay. sëriñ bi ñoom ñaar ñëpp yoreel nañ ko bor Sonko nag bu bu bu jëlaatee tàndarma bi. fayaat na bor. man jàpp naa ne bu ko jëlee dina ko lekk est-ce que bokk nga ci ñi gëm loolu. non xaaral ma la. parce commentaire yi am na ñu naan Sonko est-ce que dina jot ci tàndarma yi ba koy lekk. waa xam nga tey parce que bu ko lekkee nekkatul ci grève de la faim. waaw mais euh, jàpp naa ni tàndarma bu jógee ci kilifa bu mel ni Serigne Mountakha. waa euh, mu ni jox leen ko Sonko. Mhm. man sa pense bu ñuy ci Sonko Sonko da ko waroon xéewalu ba mu jeex sax. Mhm. noo xam nga tey ma wax la benn affaire fu mu toll nii gëm-gëmu Sonko. Mhm. kenn xamatu ko. Hmm? parce que xam nga lu tax fa mu nekk wéet kenn fekkatu ko fa ay nit ñoo ko jàpp ñooñu ñoo la mën a nettali lu xew si Sonko mais ñuy waxaan nii yëpp dañuy wax rek ma dolli la si sax ki la doon si avocat ci Ousmane Sonko waaw gis nañ ko mu def révélation euh, euh, même sax ci ci ci bopp mm-hmm. ça va pas bien maanaam santeem dafa dem ba mm-hmm. euh, commencé yàqu mm-hmm. ba ba commencé atteindre li nga xam ni moom moo di moom moo di boppam est-ce que nga fi ma waxee c'est-à-dire dem na ba jàpp boppam ci côté connaissance te loolu lu lu lu garaaw la ci ci ci xam nga xam nga tey waaw jabari Ousmane Sonko man sama jàngat bu ndaw hmm. su doon may nañ leen accès si seen jëkkër carrément ah. génn boobu du am hmm. am na wala amut ah. noo xoola dangay ngay utiliser nañ ñu ko jox ñu ñu ñu faj ko ñu ñu faj ko loo am accès doo laaj pour ñu jox la ko am na wala amut hmm. pour man dama jàpp ni li liñ ci war a jot lañ jotut moo tax ñu génn def loolu am na wala amut. Mhm. léegi daal dama lay wax benn affaire xam nit Sonko bi nekkoon ak ñun ak Sonko bële nekkut benn parce que Sonko bële gisatuñ ko mais sonk bi doon nekk ñut kooku lañ lim ñu bàyyee si loolu lañ mun a wax mais nii nii segam avocat mag ñoo ñëpp mënuñu ko gis ñun ñii ñun ñii lan lañ fiy wax. mais ñiy wax ci santé Ousmane Sonko lan moo tax ñun population yi duñ ko gëm. parce que Clédor euh, Clédor ci avocat yi la bokk ñaari soxna yi génn nañu wax ci euh, santé wu Ousmane Sonko ba léegi nit ñi euh, ñu ko war a fulaal fulaal la guñu ko. Mhm. est-ce que bu jëyee ñëwee duñ ne non pourtant ñi waxoon nañ ko. Mhm. te parce que te ñi koy wax ñi jege Ousmane Sonko la ñu ngi naan jo Ousmane Sonko santé dafa dafa commencé yëngatu. Mhm. bàyyi leen ñu faj ko mais ba léegi solution. jugul ci loolu xoolal jaaj naar ma wax la benn affaire. xanaa am loo lii li nga xam ne moo daan daw ci gëm-gëmu nit. li daan dugal nit mu am gëm-gëm. ba nga xam ne nii da koy jural mu am yërmande loolu moo dañ ci nit ñi ndax par parloo tey jii jabari Sonko yi génn bi ñu génn am na ñu leen génn di xas yaa ngi dégg même bu nekkul ay satu ñu bëri génn nañ di leen xas di leen wax lu kenn xamut kii maître Clédor lii am na ñoo xam ne dañuy génn di ko xas xam nga loolu lan moo koy indi yaa ngi dégg xoola par parloo bu métti bu yàggee day da ngay da jural rancune mm-hmm. yi nit ki doo ko téyee politique xam nga tey ñun sénégalais yëpp bu ñu téyee woon affaire Ousmane Sonko ni politique kese la mm-hmm. am na ñoo xam ne nii dañuy dem ba ci politique di yéene nit ki dee waaw te politique kese la mm-hmm. léegi lan moo la koy jural mooy par parloo gu métti yow ki ngay faral yaa ngi dégg taxul nga am ci dara ka xam ñun ñii ñëpp ki ñu war a faral lañ faralul mooy Sénégal bu ñu faraloon Sénégal dinañ di lu ñu wax ci sonk ñu gëm ko mais bëri na fu mu nii ñi nga xam ne dañuy génn di manipuler dëkk bi boo waxee lii ñu génn wax li gisoo tey ma wax la benn affaire. Mhm. sonk bi mu duggee ci kaso bi. li ñu ubbiwaat ci groupe WhatsApp kenn xamul nu mu toll. mais dox feeñu ci terrain bi. non groupe WhatsApp yi laajal ku la neex. ñi ngi ci groupe WhatsApp yi di manipuler nit yi. Mhm. su ñu waxee ni Sonko lii am ñu dugg ci groupe WhatsApp bi di di déconcentrer nit ñi pour nit ñi buñ ko gëmati. parce que beneen xeex lañ ci dugalaat si suuf. Mhm. mais dama ne leen na moom na ko xam. bu fekkante ni ay jullit lañ ñun ñëpp. Mhm. yaa ngi dégg mhm. nañ teg affaire politique fële teg affaire yële indi moral parce que loi moral moo ko ëpp doole fuuf. gis nga xeex yi ngay gis nii ak nangam na ba pare bu ma wax la benn affaire. bis boo xam ne dañoo toogal Ousmane Sonko ak ak Macky Sall. Hmm. billaahi yuuxu dina jib fuñ ko foogewul. gëm nga loolu ñaar ñooñu am na ñoo xam ni du duñu mës a nangu ñaar ñoo ñu toog waxtaan. du leen arrangé xanaa. du leen parce que ñi mu arrangé ñi mu ñi mu arrangé wul pour man moo ëpp ñi mu arrangé. mais garaawul na arrangé askan wi rek. non mais lu arrangé askan bi bu fekkoon ne moom la ñuy seet yu bëri yu ñuy def dootuñu duñ ko def di mm. euh, kii jaañ naar jaañ naar ma wala dara Sénégal fu ñu toll nii xam nga nan lay demee mm. dëkk bopp sa bopp la képp koo gis ba pare Sénégal ma wax la dara xoola képp koo gis muy wax si nit demal nga saytu ko lu bëri da njëriñam dafa nekk mais kenn waxatul njëriñu Sénégal bu doon njëriñu Sénégal la ab Ablaye Wade ak Abdou juuf dañ daan toog waxtaan c'est que Ousmane Sonko wax naa la ne dafa am sens bu xam ne dafa am sens bu Ablaye wadd amoon te Ousmane Sonko amu ko. ban sens moo tax bu ñu daan dugal Ablaye Wade kaso rek dañ koy génne. Ablaye Wade dafa amoon sens bu toll ni ñi ñi daan topp Ablaye wadd dañoo xaritoo woon ak ñi daan topp ab du Diouf. ñooñu ñoo daan dox négociation bi ci suuf gaawantu gaaw bu ñu tegee Ablaye Wade rek ñooñu noonu ñaari camp yi hmm. ñoo daan waxtaan rek dem ci Abdou Diouf ne ko non sa waa ji nii rek Abdou Diouf libéré mais fu ñu toll nii ñaari camp yi hmm. jegeentewuñu sax kon waxtaan fan lay amee mais balaa ma jox adimance mais ñi wax naan euh, délégation bi demoon ci Serigne Mountakha la moo tax gisuñ ci Khalifa Sall ak Barthélémy Diaz ça prouve que ni comme ñoom nekkatuñ ci yow askan wi xam nga ñooñu ma wax la benn affaire. pour man sama xalaat laa wax de. ñooñu bi ñuy ñëw bi ñuy ñëw euh, bi ñuy ñëw ci euh, euh, bi ñuy ñëw ci yeewi askan bi. Mhm. ñoom di ànd ak ñoom ñoom kii ñoom Ousmane Sonko. ñoom seen i parti seen parti ñoom nekk ñu fa dara. Ah bon nekk ñu fa dara. PS. PS mhm. ñoom bi ñuy jóge pees di ñëw problème lañ fa bàyyi. Hmm. waaw Serigne Mbaye Thiam moo fa nekk ak Aminata Mbengue Ndiaye. ñoom ñu bëgg ñooñu seen seen fi ñu jógee ñoom amuñu fa dara nomewuñu leen fa woon dara bu ñu ñëwee ci yeewi askan bi yaa ngi dégg mhm. yeewi askan bi ñoom ñoom la yeewi ñoom yeewuñu woon askan bi de ñooñu pour man dañoo ñëw woon pour yeewi seen bopp ñoom parce que yeewi seen bopp mooy bi ñu ñëwee yeewi askan bi ci lañ fa am lu ñu musta am wax dëgg yàlla parce que ñoo parce que Barthélemy Dias mhm. bu dul woon maire mu maire muus boobu gis moom sañul woon sax taxaw naan day nekk maire de Dakar am na wala amut xalifa mhm. Sall itam bi muy ñëw fekk na boobu xam nga mi ngi ci jafe-jafe yi lii mu am ni foogu ko woon lii lii nii nag sagam am na ko ba pare ñoom fi ñu jóge lañu dellu d'accord coalition euh, euh, naka la euh, yeewi waaw yaa ngi dégg hmm. fu ñu jógee du foofu waaw bu fa lañ delluwaat ñoom d'accord wala ñu delloo ah. ah. naka nga gisee euh, euh, déclaré ak euh, ñi àndoon ak waa coalition Yewwi Askan Wi dem ci Serigne Mountakha Bassirou ba Serigne bi jox tàndarma kii di Ousmane Sonko pour ñu yeggee ko ko pour mu xéwaloo ko jàpp nga ni ndigal la ko Serigne bi jox pour mu génn ci grève de la faim. avant tout nous sommes des musulmans. Mhm. n'est-ce pas. waaw dans un pays laïque. vrai ou faux. Mhm. te ku ne xam na ni. al Mountakha Bachir. dafay nekk pour toute une population sénégalaise. na ku nekk xam na ni muy doxee. le lu leer laa la wax. nee naa la président Macky Sall magul ci réew mi. Hmm. waaye moo jiite ñëpp. Hmm. waaye ku jaaxle foo jëm te Touba. Hmm. kon wax ji nee naa ko am na daaneel. am na mbir fi muy toll foo xamante ne nii avant tey kilifa gi di génn def lii pour pourtant ku ci nekk génn nga wax ko tous les ci koo xamante ni rusuñu kilifa rusuñu dara. kon bu leen leeroon ni tey lépp dañ koy teg ci table ji. ñaar ñooñu ala kulli ali bis dina ñëw on sait jamais ndax la vie la vie dafa àdduna dafa gudd tànk. Mm-hmm. à tout moment mën nañ taxaw di nekk ay ay xarit wala ñu toog bis ñëw ñu toog am benn terrain d'entente. Mm-hmm. est-ce que waroon nañ cee xalaat wax lu ñaaw. Mm-hmm. li olof naan la fañ miin na raam nan bàyyi yenn yu ñaaw yii te xamante ni gis nga ñii dañ fee toogal jëmmi Serigne Touba. ñii day bu réew mi yënguwul mbali tàqul jaas yi jibul. deret tuuru fi dara yënguwu fi. nee naa ko seen jëmm yi jugu ci ba tax na toujours na ñuy bàyyi di boole politique ak religion am na mbir nag fu muy toll foo xamante ne nii comme ni ma la ko xëyoon sama jël doon wax rek laa ñawaat tey bu soo Sonko taxaw di sàqu di ñaan Touba suñu président Macky Sall di sàqu ji ñaan Touba. Mm. kii bokk ci opposition kii bokk ci pouvoir te ñoom ñëpp ca ka ñu jëm nee naa ko jëmi Serigne Touba rek moom moo tax. Mm. tey mbir bu amee dinañ dinañ taxaw seetlu. parce que nag ku jiitu ñu jiital la na dañuy teg la bool bu jubee ca bu jiitu ba la mm-hmm. am na mbir moo xamante ne nii li olof naan li nga yàqal sa bopp yow yaa koy defaral sa bopp waaye li la nit yàqal nit mooy dox ba defaral la ko mu Mountakha dag koo defaral ndax defaral ko ko weesuwul xel yi dafa dal fi mu ne na te xel mu dal weesuwul ci loxoom yi tedd yooyu ci loxoy sëriñ Touba mi tedd yooyu lal ci tàndarma mi tedd yooyu fas yéene ko ko ñu jox ko ko parce que bëgg na rek. mu daal di dund bëgg na mu daal di nekk bien-être te àjjama mm-hmm. tey ji tamit euh, kii li nga xam ne moo ne tànnar ba dafa bokk ci ci ci signe yi nga xamante ni ci ñu si ñu àjjana la mm-hmm. ñamu àjjana la kon bu ko ko joxee c'est parce que na bàyyi lépp daal di delluwaat àdduna yàggul mm. nee naa ko ñu fi gën a nekk gor ñooñu nañ fi tuumaal ñi fi nekk ñu ngi a nekk ay vainqueur ñoom nañ fi yàgg a tuumaal te mu xool ci santé te mu xool surtout ci santé que boo bëggee pare euh, war nga am loo xool xoolaat sa santé mu xool ci santé waaye xool ñi nga xamante ne ñoo nekk ci ginnaawam. Mhm. du moom kese. tey bu noonu laa ko loo lambee ku jug daanu. tey ñu daal di xool ñi nga xam ñoo nekk derrière li nga xam te ne moo di Sonko. Mhm. Sonko li nekk ci ginnaaw bëri na. c'est kon nit ki doo égoïste pour xool yow kese. Mhm. da ngay xool ce qui est derrière toi. yaa ngi dégg parce que nit ki des fois boo gisee nit naan kii am na jomb am na lu muy seet am na la muy rus c'est parce que yi entourage am moo tax. waaye nee naa ko nit ku dul xool dara gisuloo dara kooku moom ma la ñoo yem. kon mbir mu mel nii bu almontaxaa Bachir ki jógee def ko mhm. ñun dey waxuma la ñun ñu dul murid di sax waaye ku dul murid sax da nga cee bëgg mhm. parce que da ngay xam ne kii macha allah Sénégal moo ko ñor kii jàmmi réew mi ko ñor waaye kii bëgg stabilité réew mi rek moom moo ko ñor mhm. ndax nag daf ko def fi mu ñoree ndax cool yi bëri woon na booy xool moo tax chaque jour damaa bëgg bis bu ñu meree nan muus xamal li tax du question da nga mer rek daal di muus ñu da nga ragal déedéet parce que ëllëg moom moo tax parce que tey képp ku toogoon di traité nu la neex yàlla na ma yàlla baal ci giddi kàddu gi yaa ngi ay magu jëm ay responsable ñoo xamante ni nga naan tu oses même pas ñu wax lii di wax di n'importe quoi tey ba al mun taxaa defee lii xanaa am nañ gàcc moo tax avant de faire quoi que ce soit il faut que na si si solution loolu c'est parce solution mhm. lii mu def c'est parce solution am na loo xamante ni luy raam ci ñag bi la jëm mhm. waxtaan mhm. dëgg ca la am na leen lu nga xamante ni bu ko defee fi nekk nii képp ku nga ni a gën a apaiser waat les températures waaye tamit gën a dalal li nga xamante ne moo de xel yi nag ki nga xamante ni wax naa la président Macky Sall magul ci réew mi waaye tubaarikàlla moo jiite réew mi waaye képp ku jaaxle tubaari nga jëm. d'accord kon nag bu liy amee sëñ bi def lii nga xamante ni macha allah c'est à saluer war ko ci jaajëfal war ko ci ngërëm war ko ni diggante Sénégal gii jàmm moom moo fi ne. Mhm. Sénégal gii jàmm moo ko fi ñor. Mhm. di di wane nit ki nga xam ne moo di président ak ki nga xamante ne moo di Sonko ñëpp ay doomam lañu kon duñu def lu dul tatagal suñu xalifa bi duñu def lu dul màggal ko duñu def lu dul wax dëgg yàlla di ko ziar bu waax di ñaan yàlla yàggal ko fi loolu te ànd ak mhm. ndax li mu def c'est à saluer vraiment d'accord euh, euh, Jimbori ma jot benn xibaar ñu may wax que ni Sonko mi ngi dans le coma depuis lundi chaque jour kon Sonko nga dans le coma bu dee vrai la bu dee vérité la euh, lan lañ ci mën a xaar non xam nga tey jii ñun ñaanuñu yàlla loolu hmm. parce que parce que tamit problème bi xam nga lan la. Mhm. Macky Sall moomul réew mi réew mi ñun ñëpp a ko bokk. waaw ñun ñoo ko tànnoon ne ko jiiteel ñi. Mhm. du dëgg. Mhm. Euh, Ousmane Sonko aussi sénégalais la. wax dëgg yàlla mais Sonko man lu ma jaaxal mooy depuis deux ans yi Sonko dund na fi lu nekk. yaa ngi dégg. dund na fi lu nekk ci ñaari at yi. actuellement nii Sonko wax naa la euh, Sonko dem nañ ba mu des moom dong ak yàlla. xam nga gars yi xeexal nañ ko fi ñu dem ba mu yàgg ñu ñëw barikaate këram jàkkaarloog moom kenn doxul diggante Sonko ak ñooñu mm-hmm. ñuy dem lante ñoom ñaar dugg ñu jàpp ko dugg ñu def dara mm-hmm. tey jii suñu toogee ba ni ah Sonko kat mi ngi euh, feebar bi dafa dem ba nekk en danger mm-hmm. yaa ngi dégg loolu bettul kenn bu doon am na bettul kenn mais dañoo ñaan yàlla Sonko wér si boppam daara bañ ci am ba pare ñun boobu ba léegi façon information bu nekk ngay jot. kii day génn wax lii kii mm-hmm. génn wax lii ba pare sénégalais nañ bàyyi moom seen réew ba pare di diaboliser dëkk bi waxal rek. Mm-hmm. da ngay gis ku xëy rek. créer benn affaire tëmbal ko mm-hmm. ay nit yu mel ne man nga xam ne amuñum xëy nekk ci di wax ba ngoon nit ki booy wax dangay wax loo xam ne xam nga tey wax yomb na de. mais sooy wax wéer ko ci loo xam ne nii. Mm-hmm. xam nga wéer ko ci loo xam ne nii day indi jàmm quoi. du indi yenn yi parce que soo nee non Sonko mi ngi si nangam ay nit seen fit rëccee fële affaire yooyu kenn xamul. defe naa ne xoola Sonko ma wax la mm-hmm. benn affaire. Mm-hmm. bi eh, eh, problème mu Adji Sarr jógee. fii laa toogoon si Feeling Dakar. Mm. ma ne leen aji saar dara du ko jot. waa Pastef ñooy garde aji saar mm. Ousmane Sonko. état bi moo koy garde parce que Pastef ci ca booba fu Adji Sarr nekk ñoom ñoo la koy wax fàtte nga ko. waaw fu sonk ma sa nekk tamit état bi moo la koy wax. état bu dara jotee Sonko du ko arrangé. Mm-hmm. am na wala amut. waxal rek kon defe naa ni ñoom ba pare man munuma gëm li nga wax nii parce que xam nga lu tax. Mm. keroog ba Sonko di dem di def caravane. état bi wóoluwul dañ ne ko coppet yóbbu këram. waaw lu tax ñu jël si ko yóbbu këram. parce que dañ tiit dara jot ko fi ñu ne koy ñoom ñoo ko def parce que booba li muy wër noonu si loxo état la nag parce que bu ko dara jotee dañ naan état ko def bëggul dara jot Sonko boobu ba léegi yaa ngi gis fu mu nekk ñu ne ko coppet yóbbu fu yóbbu yóbbu fu yóbbu fu xam ne da leen i wóor ñoom saa bu nekkee fu leen wóorul dañuy dem jël ko yóbbu ko fu leen wóor kon nga xam ni état du ko yore si loxoom ba pare di ko seetaan muy nekk ci yeneen yi man ma loolu d'accord wax dëgg yàlla te ah. il faut ñu ah. manipulation bi encore une fois il faut que am na mbir fu muy toll foo xamante ne nii soxlaatuñu scandale chaque jour je le dis et je le répète. ni nga xamante ne nii nekk nañ force tranquille nii ni partak organisé. Mhm. lépp daal di dal ñu daal di apaiser li nga xamante moo di température yi nañ ci nekk jusqu'à preuve du contraire. Mhm. c'est ça ce qui est normal en même temps nee ko gënoon naa tëj gënoon naa metti waaye mi ngi gën a nooy te dina gën a dina gën a tekkeeku. kon kañ jaratul xiiroo jaratul ŋaayoo waaye aussi jaratul li nga xamante ne moo di manipulation mm. ak di aussi di dox ci xelu nit ñi di dugal seen xel yoo xamante ni dañuy am haine dañuy am frustration mm. waaye dañuy am benn benn benn inquiétude boo xamante ni c'est pas l'appel ce n'est plus l'appel parce que fi mu nekk nii wareewa jëm na kër nee naa ko wareewa dafa jëm kër ci hmm. li nga xam jëm ci dafa jëm wareewa dafa def na ko waaye wareewa dafa jëm kër waxi ba dem ten taali barke gi di waaj a ñëw kon fi mu nekk nii jaratul kenn di xuloo jaratul kenn di xeex léegi fi mu nekk nii combat bi commencé prip moo ci des dib bi daal di daanu ñu xool fu nekk fa dëgg féete jaratu ko nañ taxaw xool que le maire gagne. d' accord c' est fini. messieurs dames 19h passé de 51 minutes fii ci Feeling Dakar la première chaîne people et politique bu Sénégal topp kaa ngeen di suivre émission bi ñu gën a suivre ci wàllum people ci sur la toile et ñu ngi koy sante suñu borom bu baax di leen ko sante yéen tamit suñu ay internautes yi nga xam ne yéen a ngi ñuy bàyyi xel fépp ci àdduna bi on va continuer de plus en plus belle euh, waxaat ci euh, affaire audio fuité Sala Sow ak kii di Awa Baba Thiam toujours en vogue sur la toile euh, ñu gis ay révélations yu bees yu ci am gis nañ sax ñu ni kii di Awa Baba Thiam def na réplique def benn benn benn audio euh, audio yooyu nag man jot